ñëw def benn zapping ci Adja nga xam ne lañ fi tëj ñaar ñetti fan dafa wax wax ju garaaw ci Haalpulaar yi. ma wax ci Ousmane mi nga xam ne dafa woote taskatu xibaar yi mu wax leen moom du bokk ci dialogue national maanaam Macky Sall woote bu mu woote. parti opposition moom ñu ko jég moom. ngir ngir ñu jubóo ñu defar Sénégal Ousmane Sonko moom nee na du ci dem. nee na. ku ci dem yow dangaa bëgg rek Macky Sall la daggal la ci gato bi ci bonbon xaalisu réew mi kon ñoom Decroix ñoom Omar Sarr mi nga xam ne PDS la bokk moom mooy numéro 2 moo topp ci Ablaye Wade Ablaye Wade ne man demul Omar Sarr moom mu ne dafay dem intérêt senegal lay xool li jëriñ Sénégal moo tax muy dem waaye Ousmane Sonko dafa ne képp koo dem nee na ñooñu poste la ñu bëgg kon Ousmane Sonko dalul Macky Sall rek mi ngi dal opposition bi tamit.

Mamour Diallo di wax Mamour Diallo dafa détourné 94 milliards maanaam dafa luubal 94 milliards waaye tey xaw na ci wax tuuti parce que wax na ba ne impôt ak domaine direction impôt domaine mu ne dafa am waa IGE ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu nit ñi ñoom dañoo génne benn rapport ay bind wax ne Mamour Diallo dafa luubal mais man rapport boobu liir naa ko te gisuma

ko bëgg waaw lii nag man ah tiit naa ci Ousmane Sonko waaw tiit naa man yaakaaroon naa ne dialogue national bi dina ci dem jéem a juboo waaw kii daal dafa wane daal Ousmane Sonko daal dafa wane ne moom pare na pour xeex ndax moom dem na ba ne gouvernement Macky Sall mafia la ay mafiosa kon moom xas yi wax dëgg bàyyiwu ko mais man li ma ci metti mooy affaire 94 milliards yi ñu xam ne dafa ñuy stakk rip ñu am benn audio boo xam ne dafa déggu ko ci muy wax famille Meng ak famille euh, Ndoye lépp yi ñëw leen fay ma douze pour cent onze milliards et quelque boole ma fayee dinaa yëngal gouvernement bi dinaa leen tiital xam naa fi may jaar ñoom dinañ leen fay. kon moom daf ci am intérêt di tax di wax Mamour Diallo dafa luubal alors que yow xaalis boobu nee nga xaalis boobu danañ ko dégg rek quatre-vingt-quatorze milliards danañ ko dégg rek génnagul. waaw kon bu fekkee ne quatorze milliards yi génnagul nga ne nit daf ko sàcc foofu jum nga ba pare yow da nga yaa ngi compte bancaire yaa ngi libali yaa ngi preuve mais doo ko génne assemblée bu leenee ñëwal nga ne du ma dem ah Ousmane Sonko mi ngi ñuy bëgg jaaxal. léegi man dinaa leen tegal audio bi dinaa leen tegal lien bi ngeen déglu seen bopp di yàqal nit ki tey Mamour Diallo nekkut directeur des impôts ay militant Louga. dolli Macky dañoo jaaxle ñi ngi xaar Macky Sall nommé ko dara waaye Macky Sall ba léegi nommé ko dara léegi nag lii nag mi ngi nar a indi problème ci Louga waaw ndax ñi ngi xam dañoo sonn fexe ba Mamour Diallo gagné tey gisuñu Mamour Diallo nekk dara boobu ba léegi lii dafa mel ne Macky Sall daf koy tuuteel loolu leen dul Mamour génn na ne moom jubóo nag Macky Sall waaye ay militant dañoo jaaxle ba léegi Adja Astou moom li mu wax dafa ëpp ndax 7TV lay liggéey moom dafa ne xale yi nga xam ne dañ leen di sàkkoo jigéen ñi ci xalpulaar yi la ëppee moom ci boppam xalpulaar la bu nekkuloon xalpulaar wax ji dina gën a garaaw waaye ba mu ko waxee ay nit dañoo dem ndara ko song a yàqate 7TV ñu téye ko ñaari fan xaw ma xaw ma benn fan waaye mujj nañ ko bàyyi nit boo nekkee ci télé da ngay xool li ngay wax teel a seen doom nag loolu lislaam dafa ne 15 ans la jigéen war a sëy bu leen fàtte ne Sénégal dëkku lislaam la waaw dañu gis xale yu ndaw ñu teel leen may en tout cas ñu wax rek mooy nit ñi nekk ci presse bi nañu def attention nañu def attention te bàyyi di wax yenn wax yu ñaaw